mbokk yeeg xarit yi nga xam ni ñooy seetaan li nga xam ni moo di Equivox TV ñu leen di jaajëfal bu baax tey nag dañoo am gan gu mag gan boo xam ne nag dañu waxtaanee lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllum actualité jëm ci wàllum koom moom nag nekk enseignant chercheur ca université Cheikh Anta Diop. moom mi tamit xam-xam daal di màcc jëm ci lu ñuy wax consultant international en économie en monnaie banque après moom dinañu wax lan mooy loole waaye tamit moom bind na ay articles yu bëri yoo xam ne nag jëm na ci pandémie Covid 19 bi. ba mujj nag bi nga xam ni livre la mu daat koy bind nekk la vision du mouridisme dans l'histoire de la pensée économique question yu bëri dinañ ko daal di waxtaanee jëm ci wàllu koom bu ko defee daal moom ni mi li nag di wuyoo ci turu Khadim Bamba Diagne docteur ñu lay nuyu. maa ngi leen di fay Fatou Touré di nuyu say téléspectateurs aussi. d'accord docteur ñu gis ni mbas bi bi mu duggee biir Sénégal ba tey laal na lu bëri laal na tamit ci aspect yu bëri jëm ci wàllu koom tey jii nii ñu defoon fii li ñu naan plan de résilience économique plan boobu bi mu ñëwee gis nañu ni euh, njiitu réew mi kii di président Macky Sall génne woon na fi lu ñu naan lu toll ci 1000 milliards daat koy teg ci table bi ngir peut-être jàppale yenn famille yi waaye bi dañoo gis ni léegi ñu ngi jànkoonte lu ñu naan deuxième vague deuxième vague boobu noonu ñu daal di déclarer li nga xam ne moo di état catastrophe naturelle tey jii nii deuxième vague boobu ban jeexital la mën a am ci wàllu koom jëm ci réew mi. Euh, dina métti trop dina métti ci réew mii dina métti ci réew àdduna bi yëpp parce que boo gëstoo bu baax euh, situation bi àdduna bi dund mooy euh, virus bi day bëgg a tëj nit ñi seen kër. alors nit ñi bu ñu tëjoo seen kër xale yi nga xamante ni ñoo am. Euh, mooy de 30 ans ñu ciy gën a sonn ndax ñu ci bëri ci ñoom bu ñu jógee euh, li ñuy saay yi ñu yeewoo dañu jóg wuti ko euh, pour mën a dundal seen bopp dundal seen njaboot waaye boo bàyyee virus bi nag mag ñi am juróom-ña benn fukki at ak juróom ñoom lay sonal léegi nag arbitrage boobu dafa metti ndaxte ñii boo leen teree dund mën na am impact ci seen njaboot xiif mën na leen rey te virus bi tamit boo ko teree boo ko jéemee bàyyi pour nit ñi mën a dund xale yi mu mu faagagal mag ñi donc fi ñu nekk nii moom képp ku yor réew dafa dañoo jara yërëm njiitu réew yëpp dañoo jara yërëm ndaxte décision yi ñu jël yëpp a metti amatul solution boo nekk ci euh, moment boo xamante ni solution amatul nag décision yi ngay jël yëpp day metti ndaxte boo bàyyi virus bi mag ñi dee boo téye virus bi xale yi dee léegi moo tax boo xoolee ci première vague bi euh, ba ñu tëjee dëkk bépp def confinement ak yooyu ñu defoon yooyu yëpp boo xoolee li dee ci bato bi moo ëpp ñi li dee ci virus bi wan nii xale yi boo leen tëjee amatuñ fu ñu liggéeyee dañ koy dañuy jéem a wut génn te wuti génn loolu tam mën nañ cee ñàkk seen bakkeen donc situation yu métti lañu la ñu dund nit ñi nag ñoo war a xam ni boo nekkee ci jamonoy crise situation yu métti yooyu euh, kenn teguñu ko min euh, na boo gëmee yàlla tamit da ngay nangu ni yàlla day nattu ay jaamam ndax damay naan souvent xëy na fenn rek la ñu ñàkk préparer nit ñi mooy psychologiquement ñu préparer leen waajal leen xam ni suñu borom ay nit yonent yàlla noox tukkil na àdduna yonent yàlla saalih tukkil na àdduna euh, yonent yàlla lóot tukkil na àdduna boo xoolee siècle bii ñu passé rek am na ñaari guerre mondiale am na pandémie ba meloon ni bii te bu gënoon dangereux bi ndax boobu ba àdduna bi tollee ci 2 milliards nit en 1920 euh, ce qu'on appelle la grippe espagnole 50 millions nit la rayoon 50 millions en 1900 2020. En 1968 la grippe de Hong Kong rayoon na plus de cinq millions nit donc virus virus yu mel ni yàgg na am ci àdduna yàgg euh, euh, faagaagal ay nit waaye bii li tax mu metti mooy euh, pour la première fois ñu xam lan mooy signification mondialisation ndekk àdduna bi ñëpp benn lañ ku dal lu dal Chine at mu gaaw mu wër ci àdduna bi yëpp sonal àdduna bi yëpp lompoñal àdduna bi yëpp day tax nag dañoo soxla ay njiit yu gaaw ci xalaat gaaw ci jëfin gaaw ci stratégie ñu teg ndaxte li ma lay wax rek boo ko boo jéemee téye virus bi kese rey ndaw ñi te boo bàyyi virus bi rey mag ñi donc équilibre bi état war a set nga xamante ni du faral rek wàllu médecine ndax tey dañu jaawale toujours santé publique ak médecine médecine moom ba professeur Seri di wax li muy fajee coronavirus bi xawma lan astromycine wax jooju man xawma sax xawma lan la loolu yi fi médecin la waaye nag ni ñu koy gérer ci dëkk bi loolu yi fi santé publique la kooku muy njiit yi dañ ca war a déglu économistes si sociologues yi psychologues yi médecins yi ndax bu ñu toppee médecins yi kese jàpp nañ dinañ gaañ ñeneen ñoo xamante ni euh, loolu jeexital yi dina métti te sur le plan économique boo xoolee ndaw ñi dañoo dañoo dañoo sonn lool dañoo loof lool ndaxte ñi am salaire moom wax dëgg yàlla mën nañ ko bañ a yëg waaye Sénégal boo xoolee fukki million nit yi yëngu bis bu nekk 400 000 ñoo ci am salaire fukki millions yi 10 millions de personnes yuy yëngu bis bu nekk 400 millions ci am salaire xam nga booy def politique di xool 400 millions yi ne ñii mën naa leen fay quelle soit la situation nga fàtte 9 millions 600 yi ah dina métti loolu. Euh, dogguma la docteur mais su ñu déggee ni 9 euh, millions et quelques yooyu noonu suñu nekkee peut-être au chômage wala ñoo xam ni dañuy yëngatu ci secteur informel bi ñu xam ne tey couvre fa ñëw na. ak yeneen yoo xam ne tey jii nii am na heure yoo xam ne mënuñu def seen liggéey est-ce que mënul indi ay jeexital yu bari bari ci seen wàllu yëngu di nga xam ne moom la ñuy def muy seen métier di ko liggéey saa su nekk. moo tax ma leen naan euh, mbir mi bu tollee fii dootul yi fi médecin yi fi santé publique la xam nga jël nañ fi couvre-feu waaye est-ce que tax na kaay yi wàññeeku déedéet waaye est-ce que amul ñu mu gaañ am na ñu mu gaañ ñu bari te ñu mu gaañ ñu bari ñoo yor seen kër ñoo seen njaboot. xam nga damay xalaat toujours toujours boo xëy na dina xaw a reetaanloo nit ñi maan yi am na ñoo xamante ne ndeysaan amuñu taxi seeni xarit ñoo daan bàyyi ba guddi ñu jox leen seen taxi ñu siiru ci pour yor ci seen njaboot léegi boo dëjee guddi gi kooku kan ma koy yoral njabootam te kenn du ko xam ñi daan jaay guddi parce que guddi du rek jaay lekk naan guddi industrie la industrie la ñu bëri si dafa am économie guddi boo xamante ci la ñu ci la ñu régler seen problème muy benn ñooñu war nañ leen bàyyi xel ndaxte kenn jàppalewu leen te ñoo yor seen njabootu bopp ñaareel bi mooy boo xoolee euh, euh, ñi naan euh, ñi ñu wooyee ñi nekk ci secteur informel bi ñu ci ñu ci bëri dañuy wàcc léegi dañuy dëkk fu sori da ngay dëkk dëkk ci banlieue fu soree sori ñooñu boo nee 21 heures moom kenn dootul doxati dañu teel a ñibbi. teel a ñibbi boobu ñuy teel a ñibbi day arrêté liggéeyu Dakar day teel a te xam nga aussi bus yi doyuñu pour yóbbu ñëpp comme bus yi doyuñu pour yóbbu ñëpp boo nee na ñëpp ñibbeendoo mooy nit ñi li nga doon bañ dënk dina am ñaareel ba ñiy dawal bus yi ñu bëri ci ñoom xajuñu dëkkuñu fii biir Ndakaaru ca ca ca banlieue bu sori bu la ñu dëkk bu ñu fexe ba dem duñu dañu xam ne bu ñu ñëwaatee 21 fii la leen fekk. donc euh, ñu sonal nit ñi ñu bëri seen liggéey tamit di yàqu te yow li nga doon séntu amoo ko dina si tax ma leen naan nañ ci dañ ko yaatal bu ñu ci dugal médecin yi kese nañ ci dugal sociologue yi nañ ci dugal psychologue yi nañ ci dugal sax sëriñ si ndax gis nga am na sëriñ yoo xamante ni ñoom la population bi gën a dégg même baatu autorité publique bi ndaxte mbas mi fi mu toll nii xeex bi dafa laaj ñëpp jàpp ci donc pour le moment daal union des force moom moo ñu mën a génne ci mbas mi ñu nekk. moom te loolu mais bu ñu xoolee benn parti rek wala bàyyi benn parti bu ci des pour ñu génn ci dina doon lu te loolu li tax mu mu mu ci mën a mën a génne mooy sëriñ soosu bu dañ dañ leen déggal waaye nit ki ku war a jóge Dakar war a ñibbi ba waxi naan Nimzaat ak circulation ni mu mel ak travaux yi ñu def nga xamante ni embouteillage bi du jeex bu ñu doon 100 war a ñibbi plus nga leen di may temps plus ñuy bañ a laalante. ñu bañ a bokkandoo di boroxloo ci benn bis waaye bis bu ñu leen wàññilee seen heure rek tax na boo xoolee li ñu bëgg amuñu ko te danger bi mi ngi am ba léegi donc il faut que ñu ñu jouer ci waxtaan ak nit ñi conscientiser leen mais koo xamante ni xiif boo ko tegaloon xiif tegal ko corona mu tànn am corona bañ xiif am corona bañ xiif moo ko gënal xiif te amul corona bo nit kii la yàlla bindee noonu nit day am ay priorité priorité nit ñëpp mooy lekk loolu mooy priorité bi lekk nag état xamoon na ko première vague bi moo tax première vague dafa distribué woon ay lekk waaye bii defoo ko bis boo ko deful nag di nga xam ni li nga bëgg doo ko am bu nit ñi amul lu ñu bëgg te comme pare woo pour defal nit ñi lu ñu bëgg xoolal nan ngay def ba nit ñi nekk ci liñ ci li ñu bëgg ñoom nga naxtaan ak ñoom ba euh, yokk leen waxtaan ak ñoom euh, ba conscientiser leen ñu mën a sol ay masque mën a sol ay gants mën sol yu demee noonu mais pour man tant que yooyu gérer wuñ ko ça va être extrêmement compliqué ñu régler problème problème yooyu ñuy ñuy def noonu. comme sànq ni ma ko waxee bu ñu déclaré ne peut-être état catastrophe naturelle dafa am lu muy àndal maanaam peut-être ko dafa am koom boo xam ni war nañ ko mën a génnee ñu gis ni boobu ba tey peut-être que déggaguñu ni am na loo xam ne génnee nañ ko ngir jàppalee population bi pour yow lan moo war a nekk taxawaayu état ci jamono ji nga xam ni koom bi nërmeelu na poos yi fëkk na dara amatul. c'est que le problème mooy suñu état yi tamit xam nga dañoo néew doole te suñu état dafa néew doole état bi dafa jéem dugg ci loo xamante ni commencé naa métti ci moom parce que boo xoolee euh, première vague bi 1000 milliards la génnee man bañ ko génnee dama bind article ci saa si neneen njuumte la parce que lii mënuñu cee dëkk te lii dafay nar yàgg gis nga même sa kër ñun ba ñu nekkee xale xaw ma ndax xale yi ñu ngi koy jànge ba léegi los de Morlam Morlam dafa am ku mu doon siis yax ba tëdd dee ba dee. ndaxte yàlla dafa dal yàlla yàllaa def nii nit moom da ngay mën a xeex loo xamante ni xam nga ni mën na fee jóg tey waaye loo xamante ni dafa ñëw pour dëkk da ngay nangoo dëkkaalik moom gis nga lii de course de vitesse course de fond la course de fond nag dafa yàgg virus bi kenn xamul kañ la fiy jóge loo xamante ne kenn xamul kañ la fiy jóge il faut que ñu bàyyi def ni comme kii suba la fiy jóge kii mi ngi fi gan la goo xamante ni bëggul ñibbi gan nga bëggul ñibbi nag doo ko ganale ganale xam nga ganale moom chaque jour nga rey xar rey nag boo ko defee ñaar ñetti fan da ngay ba sag ne ah kii li ma yoroon léegi mu jeex état bi loolu moo ko dal état bi li mu yoroon jeex na soxla yi na borom diis na te liggéey bi génnatul xaalis ci réew mi parce que nit ñi liggéeyatuñu c'est-à-dire que état ci boppam dafa jar a yërëm parce que euh, état yi moo tax damay naan bu takkee ay ëya du déglu médecins yi rek jéegu bon da koy da koy dali ci kanam ndaxte ay poosam dina oyof ndaxte état yéen ñi bu ngeen jógee fi ngeen jógee ñëw taxi bi ngeen jël rek wala oto bi ngeen jël rek essence bi ngeen lakk rek bu ngeen jëndoon 10 000 cinq 500 état di koy jël ci saa si xaalisu état la donc bu ngeen toogee dawuleen leen mooy perte tamit donc état amul benn intérêt pour réew mi bañ a am activité maintenant activité bi nag buñ ko yemale rek ci 20 heures 21 activité li léegi yamatul sax 20 heures 21 léegi entreprise yi 15 heures nga dégg sa assistante wala secrétaire ah docteur maa ngi ñibbi de ndax man fi may fi may dem dafa sori ay oto yu bëri laa jël te embouteillage dafa métti te bëgguma ko ma yeb nga xool ñooñu yëpp temps bi ñu perte énergie bi ñu perte léegi liggéey euh, liggéeyatuñu sax ak xel mu dal te xaalis amatul ci réew mi nit ñi sonn nañu te virus bii nii jugee gu fi. donc da nga jàpp ni tey état war na mën a jëlee li nga xam ne peut-être mooy couvre wante tamit yeneen ngir permettre. relance économie bi nit yi mën a dem vaquer seen occupation gën a mën a daal ci peut-être am dañu suturlu 16 millions de sénégalais 150 <coughs> mill rek nga ciy fay salaire yow état état 150 000 lay fay sa fale 16 millions waaw bu dee 150 000 rek ngay fay ci 16 millions ñeneeñ boo leen toogloo seen kër da nga leen di sonal <coughs> donc ñeneen ñi mënoo leen ne toog leen seen kër loolu doo ko def li ngay def mooy ne ah ñii kat xam naa ne su ma leen toog leen seen kër ak seen mer li ma bëgg sax duma ko am. bàyyil ma naxtaan ak ñoom ne leen léegi continuer leen def li ngeen def waaye ngir yàlla nañu def nii woo ci sëriñ si woo ci imaam woo ci nit ñëpp parce que nit ñi bu boo leen bàyyi ci nekk ci la ñu nekkoon waxtaan ak ñoom dina yomb waaye li gën a jafe mooy <coughs> nga bëgg a tànc nit ñi ñu bàyyi li ñu doon def ba pare nga am li nga bëgg. d'accord euh, conséquences yi nga xam ne toog peut-être état bi lan la waroon def de prime abord pour mën a permettre nit yi ñu mën a dox seeni soxla. ba ba nga xam ni peut-être que poche yi ak kii yi ni ñu nërmeeloo tey du ne du am. Eh, xam nga li ñu war a njëkk a xool mooy bañ a taqale ñaari comportement yi dafa am comportement nit ñi am comportement virus bi gis nga nit ñi mois de septembre octobre novembre ba virus bi di wàññeeku ba ñu am ay 2 cas trois cas nit ñi ko doon def duñu nañ daan dunde dara soppeeku wu ci. daan nañu toog ñu ñuy tëj virus bi di yokk ñu ubbi ñu virus bi di wàññeeku ba nekk ay de ni ñuy def lañ daan def ñu xëy suba virus bi yokkaat donc virus bi dafa am comportement wu boppam moo tax ci àdduna bi boo xoolee mois de décembre gis ma benn dëkk ci àdduna bi boo xamante ni virus bi yokku fa gisuma ko donc à partir de ce moment du du nit ñi kese <coughs> nit ñi dañoo seen comportement virus bi am comportement France Angleterre mi ñu ëpp doole mu ngi confiné nit ñam ay nitam ay weer ba léegi nit ñaa ngi dee cas yi ñu ngi yokk comme c'est pas possible te pourtant weer a ngi mu ngi leen tëj ça veut dire que donc nañu xool comportement virus bi bañu jàpp nit ñi rek parce que Sénégal léegi li gën a yomb mooy dañoo réew nañ toog seen kër dañoo réew dañoo réew yow koo dundalul xamoo lu muy dundee xamoo fu muy fanaan xamoo sax ndax néegam moom rek fay fanaan nga koy naan toogal sa kër xam nga Sénégal boo xoolee damay damay wax toujours rek quartier populaire ay Médina Grand Yoff léegi foofu rek la nit ñu réew ñu foofu lañu dëkk ci Dakar mais ay Mermoz yi ma dëkk ay Almadies point e kenn réew fa parce que ñooñu am nañ espace mën nañu dëkk dëkk seen kër amul problème mais am na ñoo xamante ni nelaw yi dañ koy relais donc yow kooku da ngaa mos a lijjanti kii fan lay fanaan da ngaa xam kii fu muy jëlee lu mu lekk da ngaa mos xam kii nan la yoree njabootam mënul crise mënul am rek nga bëgg a yamale ñëpp loolu mooy première erreur bi moo tax boo xoolee même cas yi sax da ngay dégg ñu naan ay plateau am na ñetti cas Mermoz am na ñetti cas euh, euh, point e. almadi naa ngi dégg ay Medina wala ay Gueule Tapée cest à parce que ñooñu amuñu sax culture dem hôpital buñ ko amee dañ koy faju doo dégg pour nga dégg ay Grand Yoff ñi nga xamante ni fa la quartier populaire yi nekk da nga ciy wax ak yenn médecin ñu ne foofu lañ gënoon tiit waaye foofu wax dëgg yàlla sax ab bëriwul ay cas moo la ëpp cas mais nit ñi amuñu culture <laughs> dem hôpital di faju ji donc pour man euh, <coughs> études yu bëri dañ ko war a def parce que boo nekk ci temps de crise da ngay gëstu ci biir crise bi gëstu yi seen gëstu yi gën a ngande ci gëstu yi mooy restez chez vous le virus est dangereux sol leen seen masque yor leen gel yi da nga xam ni masque yi ñu trois heures de temps lay durer xaw ma quatre heures de temps mais ñu bëri seen masque na quatre heures de temps dire que donc bu ñu doon bu ñu jëloon cent masques ci mbedd mi teste ko yi ci baax yi ciy baax gëm naa ni quatre-vingt-dix masques yi duñu baax gel yi am na étude bu wane ni gel yi baaxul bu ñu def IFAN quatre-vingt et quelques pour cent des gel baaxuñu nga am yow léegi yooyu yëpp fi nga mën a jouer mooy waxtaan ak nit ñi ci njëkk ak teraanga. waaye tamit docteur est-ce que tamit nit ñi neex nañoo waxtaanal parce que bu ñu nee respecté leen distanciation sociale respecté leen ay mesures barrières comme ni ñu koy waxee takk leen masque yi raxas leen mais dañuy gis ni ñoo xam ne ñoom gëmuñu sax ni feebar bi am na ba ñu koy def loolu. mais xam nga xam nga lan ngay xool koo dégg mu ne la feebar bi amul defal seetlu lii ma la wax ay nelawam doyul koo mu ne la rek Euh, euh, feebar bi amul ay nelawam doyul te day ragal bu ko gëmee ñu tëj dëkk bi moom mu am problème fu muy jëlee dépense koo dégg mu ne la feebar bi doy na feebar bi am na su restez vous xoolal plateau ceebam ceebam niin na. Ah, donc danga nga su ma la déggee bu baax mooy que ni ñi nga xam ne xëy na seen poche diisul ñoom mënuñoo gëm feebar bi ndax chaque jour instinct de survie lay doon. dañuy bëgg a daw dem wuti ji lu lekk. buñ ko buñ buñ ko gëmee mooy dañuy day day mel dañuy yombalal réew ñu ñu tëj ko. koo dégg xoolal li ma la wax rek ko tendre micro ñu la neex ku la ne feebar bi amul xoolal ci xoolal ci li muy liggéey koo dégg ma la feebar bi xa am na xoolal ci li mu nekk ñàkk dafa ëpp doole lépp loo gis ci àdduna te ñàkk ñàkk baaxul ci gor léegi gor ñaa ngi ñaan léegi léegi da gor ñaa ngi ñaan léegi am na ñoo xamante ni sonn nañu donc booy booy gérer feebar nag éléments yooyu yëpp da nga ko jël en compte man li ma gëm mooy wax ak nit ñi socio les sociologues les psychologues ñooñu man dama leen déggul ci xeex bi te ñooñu ñoo ëpp solo ci xeex bi fi ñu nekk nii gis nga mbir bu demee ba ci communauté bi rek communauté bi ñëpp dañu xool comportement nit ñi mais nit ñi nga xam lan moo mën a justifier seen décision yi ñuy jël nga mën a wax ak ñoom waaye restez chez vous restez nga wax ko ba sonn nit ñi tooguñu seen kër nga war a xam ne am na leneen parce que man Khadim ma toog sama kër gi am sama dépense yor samay télécommande mais lu muy wut ci biti lan lay wut ci biti mais su ma gisee nit nag nekk ci biti di ko di ko wuti war naa xam ne li tax mu jóg di ko wuti non njaboota ko sonal tant que amuñu lecture boobu waaye defe na rek kii moo réew léegi daal ñu réew ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ci banlieue bi quartier populaire yi c'est ça qui fait peur waaw c'est ça mais tamit soo doon peut-être am message boo xam ni di nga ko wax ñi nga xam ni tey jii ci quartier yooyu lañ dëkk de ñoom peut-être ñoom ñoo respecté wul li nga xam ni moo di mesure barrière ñoom ñooy def lu leen neex peut-être lan lay doon parce que la maladie moom existe ah mais xam nga li ma ci jaaxal ak docteur nee foofu kaay bëriwul. même cas yu ah, bëriwul am na ay cas. Ah, ah, mais comme fi nga xamante ni ñooy respecté lépp toog seen kër. wala cas yu bëri moo lay wan ni rek. donc dafa am dafa paradoxal maanaam. non c'est pas paradoxal cas yi fa la gën a bëree ci quartier populaire yooyu. fa la gën a bëri mais dañoo amul culture dem hôpital. même au delà de culture dem hôpital mais poche bu amul dara wala. biir bu taxawul nu muy macha allah loolu laa bëgg di dégg pour man nit la yàlla bindee moo am ay priorité yow mii boo yow da ngay am say priorité nit nag boo amee ay priorité day jàng mettre de l'ordre dans ses priorités ni muy mettre de l'ordre dans ses priorités mooy lii laa njëkk a def lii topp ci lii topp ci lii topp ci lii topp ci nit nag bu ñu yeewoo li ñuy njëkk a def seen àdduna mooy lu ñu lekk. bu ñu réglé seen problème lu ñu lekk ba pare jéem a xool nag après nan la ñuy def ba respecter mesures yi demee noonu boo ñu bu ñu bëggee ñu respecter mesures yi nañ leen bàyyi xel ci seen wàllu dundin gis nga bis bis bu ñu leen bàyyi xel ba ñu xam ne yërëm nga leen yaa ngi leen di bàyyi xel ñu nii ñàkk tax ñuy def yenn affaires yi ñu jëm leen a vraiment bañ leen a toroxal di leen arrêté seen affaire sëriñ si ñëpp wax ci sociologue yi ñi ñi xam ñoo ñoo ni ñuy dundee wax ak ñoom lu bëri di ko am. mais bis bu ñu continuer naan restez chez vous restez chez vous dama ne euh, restez chez ku koy dégg mooy man Xaadim man de mesure yu ñu wax ma respecté ko lu ñu ma sant ma def ko parce que mën naa ko mais nag du ma jël sama bopp comme nattukaay ndax su ma jëlee sama bopp comme nattukaay rek man ci maa ngi bokk ci 1 pour cent privilégié Sénégalais yi un pour cent ci laa bokk su ma bokk ci 1 pour cent yi nag du ma jël sama bopp comme nattukaay am na ñoo xamante ni bu ñu jugul wuti ko du ñu am lu ñu dundalee seen njaboot. tant que nag loolu réglé wuñ ko je me dis dina metti lool lool lool lool lool lool ñu ñu réglé problème mu virus bi nii ñu xam ni tamit virus bi mooy toog ba mu nekk mu yéeg mooy toog ba mu nekk mu wàcc ñaare bu ñu ko xamee ci comportement virus bi jàpp naa ni euh, tamit nañu nañu nañu bàyyi di wàññi sénégalais yi dañoo réew dañoo réew wax ak ñoom xam ni virus bi sénégalais yi am nañu comportement virus bi am nañu comportement bu dee réew yi ëpp doole ci àdduna bi ëpp ñu alal nga xamante ni am naa benn maam mi ngi mi ngi Paris dama koy woo chaque fois ndax situation bi mais saa mi ko wooyee mu ne ma non man de dañ may woo sax téléphone bi ma wax lan lan nga bëgg te may ñëw ñu may glisser xaalis ay enveloppe xaalis sama état moo koy def di ko jox xaalis di ko woo naan ko lan nga bëgg a lekk ndax mag la di ko surveiller ainsi de suite kooku xam kooku boo ko nee toogal sa kër mën na fa toog mais fii ñi fi nekk ñëpp boo leen ne toogal seen kër nan lañ fiy toogee donc pour man nañu fexe ba bàyyi jugement bi jéem a comprendre nit ñi ñi ko mën ñu ngi toog seen kër ñi toogul seen kër mënuñu ko mënuñoo toog seen kër donc vraiment pour man nañ bàyyi di leen weer daal. ci tënk daal ngir daati mën a euh, jàppale nit yi comme bi daal di wu faw nañ bàyyi nit yi daal ñu dem dox seen soxla. non nañ ñi seen soxla ñu ñu ñu conscientiser leen mais ñu ñu bàyyi xel ni ñoom it dañoo yor njaboot comme ñi nga xamante ni état da leen di fay. parce que man Sénégal li may tiital mooy euh, dañoo bëgg a def ñaari Sénégal léegi képp ko am doole danga yaru. ku ku néew doole da nga réew Sénégal léegi loolu laa fi gis c'est-à-dire que euh, dafa am problème bu fondamental virus bi dafa dangereux ñëpp xam nañ ko koo gis mu mu koy jéngu rek xamal ne la mu bàyyi ci kër moo gën a diis c'est que nañu nañu bàyyi di juger jéem a comprendre. comme waxtu bi xaw nañu tuuti sànq yaa ngi wax mondialisation ñu gis ni virus bi mu duggee changé na lu bëri ci doxalin lu ñuy wax ne à l'échelle mondiale tey jii nii euh, bu fekk après Covid tey di nga xam ne ñu ko dund. pays yu bëri wax naa comme la France ñoom tëjuwaat nañ ci seen biir peut-être ñi nga xam ne ñoo nekk ci union européenne la ñuy permettre circulation mais nangootuñu képp képp ku dugg seen dëkk sauf yenn kii yi nga xam ne négli obligeance yoo xam ne peut-être que am na tey euh, yow lu nan nga jàngatee parce que Covid bi après pays yi naka la ñuy war a mën a taxawee waatee ki côté comme côté finance alors euh, nit ñi nag gis nga fi ñu nekk nii euh, nit ak na ma yàlla jégal comme signal rek xam nga ndax xam ngeen signal bu tiitee rek day lëmasu ci boppam mais gis nga crise bi ni bu ñu ci génnee ñaari at ñu fàtte ko nekkaat ca la ñu nekkoon nit la yàlla bindee noonu mais bu ñu tiitee rek dañuy tëju waaye nag léegi euh, jàngal nañu ni am na lu bëri loo xamante ni ñoo ngi ko doon jëlee bitim réew surtout suñu politiciens yi surtout suñu politiciens ñoo war a jàng ci crise bi bu baax a baax ñu ci bëri ci ñoom bu seen wet daawoon métti sax wala bu ñu bëgg def pédicure dañu jël avion dem tey bu ñu feebaree hôpital yi nekkoon fi bu ñu ko defarul ba mu baax seen bakkan mën na cee des donc nañu bàyyi xel parce que Sénégal dafa am toujours politicien dañoo nekk ca kaw boo xoolee euh, seen am-am nu muy toll sax da tiital yow muy liggéey fu ne ak tukki fu ne fu ne nga fay lu nga fay daj nga xool li nga am ak ñoom euh, wii diw wala wii diw rek tàccu diw rek lan la ñu am dafa dafa jéggi dayoo te ñoom la ñuy xaar ñu defar yenn investissement yi investissement yooyu pour réew mi mën a xale yi mën a am liggéey ku mën a feebar mën a faju fa nga dëkk xam nga Sénégal nga gis benn maire boo xamante ni dëkk ba mu nekk maire du fa teg tànkam ay moom jàngalewuñ jàngiwuñ ci école ya moom fajawul ci yi maire bi jabaram di dem ci xamuñu dara ci dëkk boobu ñoo fay maire tànk loolu génnul ci réew ñu commencé bàyyi xel ni nekk politique mooy bokk ci biir nit ñi bokk ci biir nit ñi mooy lan tey lu mën a xew amul benn politicien bu bu mën a génn dem faju ci à l'étranger hôpital yi bu ñu ko defarul ba mu nekk ci niveau yu baax dama yàlla jégal ku ci feebar tam mën nga cee génn àdduna donc il faut que ñu xam ni toll nañ foo xamante nañu bàyyi di enrichir ñeneen ñi jéem a enrichir suñu bopp xaalis bi ñu yemale ko fii alal ju bëri amul njariñ nga gis koo xamante ni bu ñu la waxee patrimoine am da nga naan kii fan la koy dundee lu mu koy doyee nga gis xale boo xamante ni mi ngi daw ci ginnaaw 200000 francs CFA par mois mënu koo am te te te xale bi di liggéey li muy sonn yow sonnoo ko donc il faut que ñu commencer xalaat ni tubaab yi benn lenn rek la suñu suñu homme yi ñoom dañuy bëgg a rester dans l'histoire maa fi defoon lii sama dëkk maa def lii sama dëkk maa def lii sama dëkk waaye suñu homme politique am lii maa am lii maa am lii am am boobu la ñu war a démystifier dépassé ko xam ni Covid bi lu mu jàngale mooy xamuñu ku ci mucc ëllëg te tamit euh, am fi jël fi alal ju bari boo xamante ni ci yoon tëli lañ ko war waroon def tali bu baax nga fexe ba wàññi ko tali bi bañ a baax tali bi buñ ko dawee ñetti fan mu xoosu wala mu bënn oto yi de suite nga def ko ci sa bopp. tey bu mën naa am ñaanu ma ko yàlla bu ñu la yóbbu hôpital ci tali boobu ngay jaar ngay gën a souffrir parce que defaroo ko defar bu baax nañu jël xaalis bi investir ko ci réew mi parce que réew mi damay tiit su ma wàccee ne ci tali bi gis nit ñi ni ñuy toggee di xaar oto sama yaram day daw ma xool ñii ñëpp xam ni ñi jom ak ful la moo leen tax a seen kër di ko wuti ñu ngi nuy toog di xaar stressé bañ bañ ñu jàppaleen gor man loolu daf may feebar damay duma ma du comprendre parce que damay naan mais mais ñii noo leen mën a jàppee mel ni ku xar ñu ñu dajale leen après dañuy daw dugg ci oto yi la nga doon bañ nga am ko donc pour man nañ leen respecté donte seen doole bëriwul nañ leen jox ci respecté leen jéem a xam ni ñoom li leen lépp lu leen war ci état ñu ngi koy def état moo war a jël xaalis bi ñu koy jox muy budget mu def ci loo xamante ni dina dalal xelu askan bi xale yi dinañ am liggéey soxna yi. bu ñu mënee xam nga Sénégal ñaata soxna ñooy wàcc wàcc liggéey bis bu nekk ci wasin juróom saa su nekk chaque jour cinq jigéen dañ ñàkk seen bakkan ci wasin moo tax dafa am ay ay problème yoo xamante ni dafa Sénégal xam nga ñaata ñoo fi génn àdduna par par par at cent dix huit mille personnes ñooy génn àdduna par at cent dix huit mille mais ku ci nekk bu la waxee lu tax mu génn àdduna kenn xamul lan la Covid bi nag moom six cent et quelques ñoo ci génn àdduna. léegi nag bu ñu bëggee arrêté lépp nag cancer bi rek ça tue plus de huit mille personnes. loolu daal dafay mën ni daal lépp loo xam ne ay investissement la war nañ ko delloo ci biir réew mi bu ko defee ñu relever plateau médical bi jàppale nit ci ba nga xam ni peut-être que taux de mortalité bi nga wax dina xaw a mën a wàññeeku. xale yi am liggéey xam nga lan mooy joxe liggéey. gis nga suñu koñ bi rek Mermoz bu ñu newoon dañu koy pavé maire bi ne xale Mermoz yi génne leen ñu pavé koñ bi yow entreprise bi pavé boo moomee pavé bi. xale yi ci liggéey di nga yëngal di nga dugal ci koñ bi xaalis dinga nga defar koñ bi di nga wutal xale yi liggéey koñ bu ci nekk xale yi def noonu xale da nga leen jox liggéey mais euh, Sénégal les les jeunes ne rêvent plus li ma tuddee les jeunes ne rêvent plus c'est-à-dire que en euh, les jeunes ne ñu ngi seen euh, téléphone ñu ngi ci seen ay affaire parce que en réalité loolu yëpp koo ci gis téléphone koo gis mu nekk ci rek nekk ci plateau xaw ma nu ñu koy waxatee réseaux sociaux réseaux sociaux mu nekk ci wallahi def amul lu mu def mais gënalu ko mais c'est-à-dire que boppam lay nax parce que en réalité xamul lu muy def bu génnee day jéem a xool mais xamul lu muy def formé wuñ ko jàngaluñ ko mayuñu ko chance am booy bonuñu moo tax dañuy dem ba dañuy nekk ay rebelle cest à kenn du leen comprendre Sénégal leen ma fi gën a bon les gens kenn du jéem xam raison yi lu tax ñi mel ni tax xale yi toog di naan ataaya lan moo tax mais loolu neexul kenn ku sañoon. wu am ci loo jàpp am soxna am njaboot yor sa kër loolu ñëpp di wër mais boo ko mënta am da ngay dem ba da ngay da ngay perdre espoir espoir boobu nag lu koy indiwaat mooy njiitu réew yi ñun Afrique ñun réew yu néew doole yi kilifa yi ñu yor réew yi am xalaat bu ñuy xalaatee xale yi ndaw ñi Sénégal xam nga suñu moyen d'âge ñaata la 16 ans 50 pour cent de Sénégalais ont mois de 16 ans mooy Sénégal boo amee 17 ans rek mag nga léegi. 17 ans rek boo ko amee mag nga c'est-à-dire que xale yooyu fu ñu jëm lan lañ leen waajal lan la ñu def loo xamante ni mën nañ ne xale yi bu ñu màggee bu ñu amee école lycée université fii la ñu war a liggéeyee. tey mbas bi su demoon ba jeex est-ce que optimiste nga ni peut-être que comme comme bi dina relancer waat lépp mën a dox à la normale. xam nga dëkk yi nga xamante ni ay France ak États-Unis la fay dee kenn xamul nu mu toll xam nga ñun France seen population ñeent yoon la ñu ëppale. France ñu ngi ci 66 millions d' habitants ñun ñu ngi ci 17 millions d' habitants ñeent yoon lañu France France ëppale ça dire que France donc bu ñu deelee 500 ci yoon ñun war nañoo deelee 125 ci yoon waaye ñoom bu ñu deelee ay ay ay 500 par jour ñuy deelee ay 3 4 par jour nañ bàyyi di jël mesure yooyu te ñoom taxul tëju ñu seen économie dañu wàccee couvre-feu ba si yàgg ba ñëpp defoon dañuy dem confinement ñu bañ xam nga lu tax. xam nañu buñ ko defee duñu mën a yor duñu ñu mën a tenir ñu nag réew lañ boo xamante ne suñuy dépense mësta mat ba jàmm di xew kese crise amul dara amul dañuy lebi pour mottali chaque chaque at dañuy leb dañuy dund fukki weer lebi leb leb ci ñaari weer pour mottali waaw koo xamante ne yow sa dund mësul mat crise ñëw nag nga ne léegi bàyyi ma toog sama kër rester chez vous man bañ njëkkee def rester chez vous laa ne da ngeen ci génn mu neex leen da ngeen ci génn mu naqal da ngeen ci génn que sa matul léegi nag fi ñu nekk nii dañu xam ñaar li ma ci metti mooy dañoo nara a naj économie bi ba mu sens ñu koy soog a bàyyi te tax li ñu bëgg duñ ko am moo tax ma bëgg man ñu mën a dugg ci conscientiser nit ñi waxtaan ak nit ñi que ñu leen di contraindre nit du mala nit kenn du ko contraindre nit mën nga boo waxee ak moom ci njëkk sa doom sax boo waxee ak moom ci njëkk ak teraanga mu déglu la waaye boo ko forcé boo ko wanee ginnaaw mu def lu mu bëgg. ñu daal lay jaajëfal di remercier ci ni ñu invité fii ci sa biir kër ngir waxtaanee lépp li nga xam ne dafa jëm comme soxal wàllu Covid 19 bi. kontaan naa trop di leen sant di leen di leen gërëm aussi di ñaan yàlla aussi euh, waxtaan bi amal njëriñ askan bi amal njëriñ aussi seen chaîne bi Equivox ak euh, ñëpp ñu doon seetaan. d'accord mu ngoog tey jii docteur Khadim Bamba Diagne économiste xam-xamam màcc ci wàllu koom la ñu amoon am moom entretien ngir waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum euh, koom daal di tënk li nga xam ni moo di Covid 19 di mbas bi nga xam ne nag lëmbee na biir Sénégal di ñaanaat rek di ñaaxaat Sénégal yi kenn ku ci nekk respecté li nga xam ne moo di mesure barrières yi waaye tamit distanciation sociale bi bu ko defee bu daat fi jóge comme bi daal di mun a taxawaat lépp mun a doy ñu joxe nag di dig daje. ci beneen émission